di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jël si waat ci seen jotaay bi ngeen miin baaxu ko àndak seen euh, sit télévision MK TV ñu koy ànd ak jotaay yoo xam ne miinoon ngeen di ko ànd ak suñu mbokk sëriñ Abdou Lahad Bousso moom sëriñ Thierno mu baaxoo ca dalal sëriñ Mbacke Abdourahmane xëy na nag euh, jotaay bi am na ak gij tuuti waaye lu ñàkk incha allah ci jotaay yi di ñëw dañ ko dab dabatal ci biir loolu comme ni ngeen ko xamee rek jotaay bi yu bëree bari dafay indi ay xew-xew di ci waxtaan léeg-léeg mu ndekku laaj yi nga xam ne mbokki julli ji danañ ko laaj ci ay barab bi fasanti ko boo defee ngir bëgg ubbi ko ci seen diine ñu ànd ñu ànd ceeg kenn ci kilifa yi ci borom xam-xam yi boo defee mu daal ciy tontu. kiñ ci baaxoo daan dalal nag moom lañ ci dalal ba tey muy Serigne Mbacke Abdourahmane xam naa bala ñu door jotaay bi dañ koy jox mu daal di nuyoo bu ko defee ñu daal di jublu ci liggéey bi aouzu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ Abdou Khadir maa ngi leen nuyu di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñuy bàyyi xel ëttub xam-xam bi di leen ziyaare di leen ndokkeel ci at mi ñu tàbbi di atum julit mu yees di ñaan sunu borom def ko atum xewal atum jàmm tàmbalee ndokkeel ak ziyaare rek ci Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha di du al umma islaami yëpp di leen ndokkeel waaye di beral nuyoo ak ndokkeel daayiratu Muxaddamatul Xidma yi nga xam ne ñooy amal jataay yoom solo yi te ni nga ko waxee sëriñ Abdou Lahad bu sa Cerno Euh, baaxoo di ko ànd ak bokk yi tey nga ànd ceeg ñun ngeen seq ko muy liggéey bu am solo boo xam ne am na njariñ lool ci jullit ñi ndax am jàng la fàttalante ci diine la loolu bokk na ci li tax suñu jaamu yàlla mën a jàpp kon ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkal ñëpp di leen ziar yéen itam ba séenee ah, tab ci jotaay bi ci jàmm incha allah. incha allah ok jërëjëf sëriñ bi ñu ngi soof kàddu di nuyuwaat mbokki jullit ji yëpp. di leen euh, sargal bu baax a baax waaye di leen ndokkeel ci at mu yees mi comme ni ko sëriñ bi waxee rawatina it di ci gën a ndokkeel di ci ñaanal bu baax a baax Mawlana euh, sunu xalifa Cheikh Mamadou Mountakha ak ñi ko jàppale ci liggéey bi yëpp xëy na bu ñu tegee ndokkeel gi ak nuyoo bi ak ñaan gi ci loxoom rek dana jàll ci umma islamiya bi yëpp ndax moom ñëpp dafi nekkal sëriñ bi kon mu mel ne liggéey bi xam naa tey dañ ci jël dara rek ndax mel na ne laaj yi bari na lool comme ni ma ko waxee léegi jotaay bi dafa xaw a bëri waaye dinañ ci jukkee suñu kem lay kàttan rek boo ko defee jëm ci ànd ak sëriñ bi mu tontu ci li ci bu ñu amaatee beneen jotaay beneen passé man koo man man man man ci daal di jublu sëriñ bi laaj njëkk bi ki dafay raaj ne ma nit sañ naa takk ab sëy ci bu ci kenn ci ñaari waajuram rek d'accord xam ne daal consulté wu ñaar ñëpp dafay mel ne hmm. ok jërëjëf sëriñ Abdou Khadir ab sëy niñ ko xamee dafa am ay ponk li ca jiitu ëpp ci solo mooy li su tuddee wala yi maanaam kilifa gi nga xam ne mooy kilif mooy kilifa jigéen kooku moom mooy baayam hmm. mbaa ku taxaw taxawaay baayam dañ ko ko baayam féetaleel wala bu fi baayam nekkut ñi war a wut baayam ci askan wi kooku mooy mayub sëy hmm. xëy na diisoo ci ak yaayam nag lu ñu santaane la lu baax ndax dana taxit du dégg na am waaye kii fas ab sëy moom nga xam ne moom bu ci àndee woy bu ci àndu dóoy mooy bàyyi mbaa ku ko fa teewal kon ci wàllu googu moom bàyyi lañ ci waxal bàyyi nag balaa fas sëy bi na wax ak yaayam loolu bokk na ci lislaam di ko santaane na diisoo yaayam mi nga xam ne ñoo ko seq ñoom ñaar buñ ci déggoo dana tax mu gën a jàpp ne mu gën a yomb amaa nag misaal buñ fasoon sëy boo xam dañu yaayam lañu waxal mu joxe ndigal ñu fas ko boobu sëy fasul ndax sëy du fasute wala am te wàllu yi ci lislaam niñ ko ne mooy bàyyi moo koy doon ak ñi nga xam ne ñoo wutu bàyyi ci ci doom bi mm. kon faaw bàyyi moom ci ñàkk léegi nag dolli ca yaay di koy mattule di ko gën a matal la di ko gën a rafetal waaye ne day tax yaakaar yi gën a gën a gën a dëgër mm. waaye daal ki mënti ñàkk ci sëy daal ci fas mooy bàyyi mm. jërëjëf Serigne naa leer na ci ki nga xam ne moo ko laajoon kon ki waaye nag taamu nañ lool di ci waxtaan ak yaay ndax dana gën a taxal diggante bi dana tax ànd bi gën a rafet euh, ñaareelu laaj bi kii dafay laaj ne ndax jaay ay diw yoo xam ne day soppi melokaanu yaram ndax dagan na wala daganut bu fekkee ne du lor moo ko waral de nga xam ne nit ki day faju faj ma nag la jur soppi yaram waaw loolu ngant la amaa jumloo soppi aw yaram loolu day dugg ci biir sopp junub yàlla hmm. ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo bind jaam ñi ñi mu melal leen nii ñi mu melal leen kon koo xam ne melaw yi nga mel day mel ni nga bëgg koo soppi loolu xëtt ndigal suñu borom la soppi jéemoo soppi biiru yàlla loolu dëgganul lu dëganoon nag jumtuwaay yi jëfandikoo nga defee ko du dagan jaay ko du dagan ndax booba ngi nekk dugg ci biir taawun ci bàkkaar dugg ci biir jàppalante ci bàkkaar borom bi dañu ko tere woon kon du dagan ab julit di jaay produit yoo xam ne day soppi aw yaram ci anam goo xam ne du lor nga nit ki moo bëgg soppi ni ko yàlla bindee yor benn melokaan loolu moom moo dëgg kon dee si jàppale kenn bu fekkoon nag daa am lu ko dal ñu di ko faj yow yaram moom far faj ma juraale yaram dara soppi ko loolu du doon jublu waaye bu fekkee nag dañ koo liggéey moom ju moom moom moom produit bi ngir rek soppi yaram kese loolu moom boobaa jaay ko du dagan jënd ko du dagan jëfandikoo dagan jërëjëf euh, laaj bi kii dafay wax ne Euh, kii ab dëgg la boo xam ne day yore ay lam ak i yoo xam ne ci or lañ ko defare waaye léeg-léeg nag matériel bi ñu dañ ko jox ko garanti léegi ko ci matériel boo xam ne garanti la boo xam ne dafa war a boobu mun nga garanti moom ñaare day tolloog la nga la nga garanti mbaa mu ëpp mbaa mu gën a mooy ñaare boo lebalee nit xëy na mu garanti fa loo xam ne bu demoon bu fay jot te fayut nga fay ko bu fekkee ñoo tolloo bu fekkee li mu fa garanti ëpp dañ koy wecciku nga fay ko ca la des nga delloo ko borom léegi nag foofu bu fekkee daal moom lim bi ma la taxoon ñu garanti ko ñëwut bu fekkee ñoo moog li ñoo tolloo xiima sañ na koo jël fay ko lay teg bu ko ëppee nag sañ jaay mu jël la cay àqam mm. la ca des mu dencal ko borom saa yoo ko gisee mu jox ko ko su ko gisut xamut ci moom dara mu saraxe mu saraxe ko téye na ko yàlla. jërëjëf xam naa daal bu tolloo lañ gaarante. Euh, mën na ko daal di jëfandikoo ndax day mel ne xam la saa yoo xamee ne nag da koo ëpp wala da euh, wax ji nekk. bu fekkee ne da koo ëpp mu xool la tolloo mu daal koy la jël des mu daal koy euh, delloo ko. Uhuh. bu fekkee borom nekkatu fi. waaw ki ñeenteelu laaj bi kii dafa wax ne kii day liggéey ci gaal moom daal a nappkat la boo xam ne fi mu toll nii ci gaal yi. yàlla dogal nag gis mu gént sangu farata euh, mënut a wàcc gaal gi képp koo xam ne sangu da koo war te mënut sangu moo ko jàpp war te jàpp ñooy dañuy tiim kon mu nekk ci gaal mu ne feneen maanaam tiim mooy wuutu laab gu mag ak gu ndaw moo cee wuutu ndox mooy wuutu jàpp di wuutu càngaay képp koo xam ne daa war a laab daal ah, tahaaratul xadas moo xam bu mag bi bu ndaw te amoon amoo amoo amoo ndox wala mën noo jëfandikoo ndox mi tiim mooy nekk safarat doonte sangoo ko war mënta sangu am na ngànt ndax ndox amut wala amut barab ba mu sangoo day tiim julli ba ba muy mën a sangu mu sangu waaye julli mu julli ci tiim mu baax na Euh, euh, waaw maam moom de sëñ te féete kanam imaam moom ci ci coobare waaye nag bu ngànt amee mu ñëw fekk jàkk ji fees wala fii ji daal fees na amatul fenn fu mu taxaw sëñ naa taxaw làng lii cosaan mooy nga ne ci ginnaaw ilima ilimaan ne ci kanam maam moom yëpp ne ci ginnaaw waaye su ngànt amee sañ nañoo tolloog moom ci wetu ndeyjooram wala càmmooñam sañ nañoo ne ci kanam kon du maslaa bu dee jàkka jumaa jumaa wala jullikaay yooyu yëpp kanam jumaa ja kanam mexraab ba kenn waru faa toog ci sa coobare euh, faw dañuy nit ba jumaa ji fees ba pegg yi fees nga xam ne kenn amatul foo mën a jullee su waaw sañ nañu la ci kanam loolu nag léegi lu solo ndax léeg-léeg nit ñoo xam dañuy tàmm xam jàkk ji feesagul mm-hmm. dañ faa njëkk ñoom waaye tàmm penku jàkk ji toog fa ci fekk jamono bi ñu fi toog moom waruñ faa toog ndax boobu nekkagul fu ñu sañee fu ñu war a toog ndax jumaa ji feesagul kon faaw jumaa ji fees pegg yi fees ba amatuñ fa toog ñu door a sañee toog ci kanam ilimaan du tere nag bu ko defoon ni julli gu baax na dañ koy tere day wàññi aw yéewum mm. waaye nag bu ko defoon ci toogaram ci tey ko waaye julli na julli gu ma ngi doon dégg kàddu ilimaan lu mu def mu def ko bu sërmale insha allah julli gu baax jërëjëf mel na euh, ci muy ëpp waaw juróom-benneel laaj bi kii dafay laaj ne benn waaye gi nii boo xam ne dafa am ñaari soxna kenn dafa am salaire di fayu ki ci des moom liggéeyut ndax boobaa bu leen di jox day xool ka am salaire mu jox ko lu jox ka am salaire wala boobu kenn ku ne rek la mu lay jox ak la muy jox waaw euh, jërëjëf sëñ Abdou Khadir lislaam santu borom kër mu yamale ay soxnaam loolu nit ñi dañu ko war a bàyyi xel santu mu yamale ay soxnaam li mu leen jox. Mm. waaye maandu la sant la santaane maanu mooy kenn koy mu jox ko àqam ki nga xam ne aajoom leader boo ko joxee man caa yor léppam ndax kii am salaire sax nag mu ko neexee téyeb salaire am ne borom kër yaa ma war a dundal yaa ma war sañ na liggéey lam am mu téye ko waaye borom kër moo ko sañ na it wàññil ko ay warteefam comme maa ngi liggéey kat teggal naa la dépense bi wala teggal naa la code bi wala teggal naa la dëkkuwaay bi mm. loolu ak mbaax la jëflante bu rafet la mm. ànd ci maaruf la loolu nag jotagut ak kee nga xam ne moom da koo amel àq yu mu sëkk amut amu ko fenn moom moo ko war a gàddu mm. kon suba bu fekkee daa jox ki amut salaire koddam jox ko dundam dëkkal ko kee nag mu am lu ca lu teggati fekk koo ko jublu ndax maanaam tekkiwut ne ko am na salaire rek day wàññi la ko war na ci moom waaye nag ñaare li mel ni mel noonu li cëpp dañ ñëw tanaasul ci seen yenn ak mm-hmm. wàññil seen boo dem ko yenn yi ndax mën nañ ko caaw jàpp waaw yiw la mm-hmm. waaye duñ wax mukk ne ki yor ñaari soxna na leen yemale mm-hmm. déedéet islam day wax ne na maandu ci diggante bi kenn ku na ko jox ak naag faral di wax ci lekk na kenn ko lekk bu suur bu ñuy woddu na kenn ku ne sol lu jot loo xam ne bu julli jotee mën ko julli waaye ku yor soxna yoo xam ne tolloo ci seen aajowoo ci li ñuy jëfandikoo tolloowuñ nun toll ci boo leen di waddu doo mm. tollale maak yoo leen jox kon na maandu mooy kenn ku ñu jox ko ak mm-hmm. loolu la ñuy wax ci yëpp sëñ Abdou Khadre jërëjëf jërëjëf eh, eh, ñaar benn mu du génn ñaar du génn ak may ak ndimbal loo xam ne kër liggéeyukaay gi moo ko warlu ci yépp ku muy liggéeyal ba nga wàcc mu di la ko jàppale dañ la ko baax wala muy loo xam ne ba ngay liggéey dañ la waroon a jox ab lim am lañ koy comm di la ko dencal soo demee ba wàcc ñu di jël di la ci jox léeg sax dañ ko yokk am na yoo xam ne day cosaan la loolu la waaye dañ cee yokk di ngir dimbale la ngir yow euh, nga mën a wéy di dund dund gu baax kon day mel ni ndimbal la yoo xam ne këru liggéeyukaay wala état boo koy dimbale ñu mm. jaboote ginnaaw bu ko liggéeyalee ba seen liggéey mat loolu dara nekk nit ki sañ na ko jox jikko jërëjëf waaw kii moom li muy laaj mooy nee na benn waaye ngi nii boo xam ne bàyyi bi bëgg doom ji bàyyi fa daan liggéey ñëw liggéeyandoo wax ne bañ daa war a ñëw liggéeyal baayam di ndax loolu bokkul ci àq yi eh, dox diggante baay ak doom mu ne faw daa war di ko liggéeyal bu xasee màgg ba nga xam ne dundam wàcc na bàyyam rek moom daa war a wuti liggéey bu dëppoo euh, boo xam ne mën na ko te mën na caa suturlu su boobaa nag bu fekkee ne liggéey boo fa ba fa ko baam di woo mën na fa am albirru bi mi ci maanaam baaxee ooy juróom nekk na ci jokk mbokk nga ci kon mu dem foofu muy gën ci moom waaye xëy na lor ji am nag mu di ko woo ci foo xam ne fa mu nekk ko gën nga xam ne moom bu jógee dem wuji bàyyam dana donte ma ngay jokk bokk foofu nag duñ ko wax ne ko euh, da koo war waaye buy gàntu nag na gàntu ci teggin ceeg rafetal bu mu ko wax lu ko naqare bu mu ko wax ndax way juróoma mhm. ah, waaw na dafi pexe daal ba jox ko ngànt su boobaa ngir xam ne mën naa am nekk xëy na bu ko lor lay dana nangu mhm. waaye duñ wax mukk nag ne faw daa war a bàyyi ab liggéeyam dem ci dem dem ci bàyyam mhm. loolu bokk ci àq yi war yi nga xam ne faw da ko ci war a topp jërëjëf sëriñ waaye bu waaw kaw ndëggu de daa bokk ci awara yi jigéen la bokk waaye ci awara ju woyof gi la bokk hmm. xam nga awra daa am jut foor yoo xam ne bu feeñee ci biir julli julli yàqu xam ne bu feeñee ci julli julli baax na waaye sopp nañ baamu ko su waxtu jeexul hmm. kaw tànk yooyu ci loolu bokk jigéen li liñ gën mooy buy julli na solo loo xam ne kaw kaw tànk yi du feeñ waa yaram bépp ba mu des xar kanam yi ak tenq yi bu ci loolu rek da ko dañoo bëgg muur yi nga xam ne mooy li nga xam ne bu feeñee julli ga du baax nag mooy li tàmbale ci dënn bi ji ba ci bëti woom yi foofu moom da ko war a muur ci kanam ci ginnaaw yi ñu des nag awra la waaye awra ju woyof la joo xam ne ak feeñam du tee julli ga baax waaye nag manqué na moo tax bu julli woon ci bar masalan tànk yi feeñ dañ koy sant feeg jant bi sowut mhm. na baamu julli googu su ko fàttalikoo na mu na julliwaat julli goo xam day muur yaram day muur lépp kon nag moo tax li gën a baax daal mooy jigéen na bàyyi xel ne buy julli yaramam lépp loolu xar kanam beeg tenq yi awara a muur donte wóote nañ ay fooraay waaye nag mu bàyyi xel loolu fexe bu waajal boo xam saa buy julli eh, sol loo xam ne nii kaw ndëgg yu du feeñ eh, dara ci ay cëram du feeñ xar kanam bi rek la ñuy gis wala tenq yi loolu moom lu mat a bàyyi xel waaw euh, kii moom li mooy ñi ñu tuddee asxaabul fatra euh, nga xam ne dañoo feeñ ci jamono joo xam ne euh, yónni mooy seen atte ndax dañ leen jàppee mhm. nga as luñ leen topp waaw asxaabul fatra hmm. noonu nga waxee lépp ci borom xam-xam dañuy wax ne mooy ñi ne ci jamono joo xam ne yónni wuñ ci ñoom kenn am na sax ñu ko yemale ci diggante yonent Yàlla Isaa alayhi ak yonent Yàlla Muhammad wax nañu juróom benn téeméer at yooyu nga xam ne ab yonent jeex na wel ñëw wax ne lu jiitu Isa alayhi salaam yonent bu mosaan a dem beneen ñëw dañ doon toftaloo bi doon xita waaye bi Isa ñëw ba dem nag dog na lu dal juróom benn téeméeri at yàlla yónniwul keneen Seydina Muhammad alayhi salaam ñëw mottali yonent yi diggante boobu nañu fa doon am ñu boole yéen nag képp koo xam ne lam tabluhu moom waaye dund na ci barab bu faatu daal waaye kenn ñëwu ko xupp ko ci yàlla woo ko ci yàlla mu ñu ñëpp ahlu fatar lañ bokk ñooñu la ñuy wax ne bu yomal xayma suñu borom daf leen natt natt boo xam ne buñ ci la ñu jógee mu yóbbu leen fa leen yóbbu eh, du kenn du wax ne nit sawar lañ ndax ñoom nekkuñ mu kàllafoon ndax bala ñu la taklif dañ lay woo kenn woo leen ci diin waaye nag suñu borom xam na ñoom bu diini amoon lu ñu dooni tel la di nattoo lañ doon mat leen ci coobareem subhaanahu wa taala waaw bu fekkee ne waxtu tàbbi na maanaam ñaar rakkee fajar waxtoom mooy bu fajar jotee saa bu julli suba daganee rek foofu la ñuy jullee ñaar rakkee fajar léeg-léeg bu fekkee noddukat bi day yéex a nodd waaye yow am nga yaqiin xam nga wóor ni waxtu tàbbi na sañ nga julli ñaar rakkee fajar bu fekkee noddukat bi nag day noddu ci bopp waxtu yi nga xam ne saa bu noddee rek mooy tekki di waxtu tàbbi na ci saasa kooku moom nga xam ne lu ko jiitu waxtu tàbbi kooku ko nodd ci guddi nga ci guddi nga julli fajar te fajar kenn du ko julli guddi maanaam fii ak fajar jotul julli fajar daganagul booba julli guddi la julli guddi kon daal faaw nit ki julli ñaar ak fajar na am yitte ci waxtu bi te ci am solo daal mooy bi ñu koy julli na fekk waxtu waxtu tàbbi moo xam nodd nañ moo xam nodd waaye na waxtu tàbbi li gën a bari fii nag ci nodd gi la ñuy xamee tàbbi waxtu waaye ki nga xam nag am na yitte boppam mm. ba xam ne waxtu tàbbi na doon ci nodd ko bi daa yeex a nodd wax léegi moom ci ay jàkka suba moom bu jullee ñaar rakkay fajar ginnaaw bu waxtu tàbbee julli day day delluwaat rek ci yitte nit ki. ak mhm. it xam waxtoom ak yitte ki nga xam ne mooy yëgle waxtu bi te mooy noddukat bi. Mhm. ki dafay laaj mu ne euh, danoon dañ mbooloo di jékki-jékki jug taxaw maamum yi toppuñ ko ca taxaw boobu ndax boobaa dañuy sujjoot sujjoot jamuj wala xam nga dañoo wax ne maamum moom. dañ koo def ngir muy roy ilimaanam saa bu ilimaan di sujoo ngir njuumte maa moom daa war a sujoo donte juumam njuumte la donte sax fekkiwu maanaam masbuuq tey mën nañ koo rawee rakka bu njëkk masalan imaam juumte luy waral bu dee ba sujjóot bay jeex mu sujjóot qabla salaam yow mu rawoon fekkee loole waaye bu sa ilimaan di sujjóot kon bu imaam xasee juum jub taxaw ba dolli dara toog ñu xasabal ko mu toog bu sëlmalee bay sujjóot ba ànd salaam ñëpp ay ànd ak moom doonte mbooloo bi topp ci ginnaawam jamoo ji ndax njuumteel imaam day topp maamoom njuumteel day topp maamoom moo tax ñu bu juumee rek ba ba ba bay def li warul su jot xam ne da ci maamoo dañ ko tawar topp. waaw dafa mel ni laaj moom ni mu ñëwee mooy euh, ñoom mu mujj lu taxaw. Mm-hmm. léegi nag leer bi ndax sabal nañ daal la laaj bi ñëwee. dañoo toog maa jàpp ne maa jàpp ne ñoom li bëgg a wax. Hmm. mooy imaam daa jàpp ne julli gi matut xam nga naa toog di taaya. Hmm. jàpp ne taaya digg la. waaw ah. daal di jóg booy jóg taxaw di àggale. Hmm. bu baax fa suus mooy benn ñoo ko sàbbal ne ko julli gi mat na wala daa taxaw ba na fàttaliku ne julli gi mat na mm. lu ci mën a xew moom yokk na ci julli gi loo xam ne mm. da koy mm. mm-hmm. euh, kii moom day laaj ne li suñu borom di na ilaa bëgg na ko jàppale ci euh, tafsir bi waaw xam nga aaya bi de li muy wax mooy aw xëy na baatu wax yu li muy firi mooy sol waaye dana firi wax yu ilham dana teg ilham di teg lu ñu wax ci génn ba hmm. mën naa xaw daal yàlla yaayu yontu yàlla Moussa alayhi salaam ba mu juddoo ci barab boo xam ne dañoo wax ne mennum yaayam ak ab sëram dong ñu ko yëg jamono ji nga xam ne Firawna na doon def ku juddu tey góor bokk ci banu Israël mu rey la ndax dañoo gént ne ko ki lay ba banu Israël bokk góor lay doon ci bokk mu ne moom léegi pexe bi daf mooy ku juddu rek ko kooku du du màgg bi Moussa juddoo nag kenn yëgu ko yaayam ko yëg ak sëram boobu hmm. nee na sunu borom na ko nàmpal ko euh, saa boo tiitee ne dara mën na koo lor na ko sànni ci géej gi booba niil dexu niil tam la la njuboo wax hmm. nee na nàmpal na ko ñetti weer bi mu ba tiit daal ne mën naa mu feeñ ci la ko dugal ci gaal sànni ko ci ndox mi waaye borom moo ko nag bu ragal mooy lab hmm. dañ la ko delloo si waat te buy del te danañ ko dox ab yonent bañ ko sànnee ci la ko waa kër Firawna for mm. la ca xew xew ci ba soxnaam ñëw xam nga eh, ba ko naan eh, qurratu ayni li walak mm. ma ne kii day mën naa doon kuy saral suñu xol boo liggéey wax na bi ko waxee sax Firawna dañ ko xanaa yow waaye du man fi ala noonu la demee mm. kaanat kaana Muusa qurratu aynin li eh, Asiya ndax tuub na dugg ci diini ba tabbi aljanna Firawna Muusa tax mu ñàkk nguur ga dee kon loolu la ci borom xam-xam yi tafsir wax daal nga xam ne kon gëm yàlla moo ko moo dañ ko yenkewal ne ko doom yii mm. yaa ngi ko yor nàmpal ko waaye saa boo mën naa am lor dab ko xëy na saa ko firaw na yëgee dana jëkku jël si rendi ko mm. loolu la loolu la tëral mm. boobaa yow sànni ko ci géej maanaam ci gaal la ko dugal ak koy sànni ci ndox ci dexu niil bi yàlla dogal ci lam dogal ba ni màggee ba ci loxoom la la Moussa la la firaw <coughs> euh, na ñàkkee ngorom dee kii daal waajur la woo xam ne jëfu jiite ci jàngal ay doomam xamal leen li ñu war a xam waaye nag doom yi nag ñoom góorgóorlu nañ ba jàng alxuraan ba bokkal ko wala boobu na xiyaam suñu borom dana ko ci xisaab bu la déet waaw yàlla moom daa bëri nag nañ jàpp ne warteef bu ko nit ci defut hmm, yàlla mën na ko laaj ba léegi ndax warteef la ci wayjur moom mu taxawu doom xam nga euh, yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha naasu wal hijaara yoo xam ne mooy nga fexe ba doom ji jaar fi war a jaar kon moom bu bu sàgganee kon bàyyi na warteefam xëy na nag doom ji ko góorgóorlu ci ba mën ko moom xëy na àq ji mu ko amee man bu ko mu wàcc ko ndax na ko xaañoon moom góorgóorlu ba ko waaye daal way jur war naa moytu àq ji ko ji ko war ci doomam mu sàggane ko moo xam doom ji taxaw na ci boppam ba am ko wala defu mm-hmm. waaye lu ci moom way jur la waroon boo liggéey yàlla mën na koo laaj bu ko yërëm mm-hmm. ok jërëjëf xam naa sëriñ bi mën nañu yi fii rek ba suñu beneen jotaay incha allah mm-hmm. euh, dañuy santaat mbokk baax a baax di leen gërëm di leen euh, wax ne laaj yi ci des nañ ko tontu ci suñu jotaay di ñëw waaye xanaa dellu di bàyyi di sant mbokk yi doon teewlu jotaay bi rek di sant it yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawee ñaan suñu borom defal ñu tawféex defal ñu xabul li ci nekk aw yiw yàlla defal ñu ko. di delloo di ndokkeel ñëpp ci njëlbeenu at mi di ñaan yàlla nekk atum yiw atum xewal atum mucc. nawet bi ñu nekk it yàlla ko yàlla sottal te mu ànd ak xéewal ak jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay baax a baax di la ndokkeel di la delloo ñaan yëpp ñaan suñu borom nag ñaan ñi te boole ñu ñii nit ñu leen di jox dig daje comme ni ngeen ko xam ne gàggantiku dañ koy faral di baaxoo ànd ak yéen ci le 9 bu ne ak le 23 incha allah danañ fexe ba bépp question boo xam ne ñëw na fi rek bépp laaj bi fi root rek danañ fexe ba ànd ko sëñ bi tontu ko waaye ba beneen jotaay incha allah ak yeneen laaj asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam